léegi par rapport ak la venue de Mélenchon à Dakar parce que yaa ngi woon ci sous-région bi ak ses amis yi nekk ci euh, pays yi nga xam ne état militaire la jamono ji euh, ñëw Mélenchon bi daf fi bàyyi coow lu rëy rëy est-ce que ça en valait la peine lan moo tax concrètement euh, tey jii nii on a fait tout un débat. parce que tout simplement c'est un premier ministre qui se met d'emblée dans la peau d'un président de la République qui fait ce qu'on appelle une confusion de genre et de rôle. lu mu wax luy junj loolu. may ñëw rek. déjà comme ni ma la wax sànq si on bu ñu structurer la la la la la la le discours les propos de Ousmane ko mhm. dafa am ay axes ñaari axes dégager naa la ko beneen axe bi mooy sur la monnaie yaa ngi dégg beneen axe bi mooy sur la présence de l'armée française au Sénégal. beneen axe bi mooy sur. l'homosexualité sur les lobbies LGBT joow li sax foofu la commencé foofu la gën a kii waay mais xam nga foofu ñaari opinion ñoo divisé wu première opinion bi mooy l'opinion publique nationale sénégalaise. qui s'est indignée. qui s'est indignée ci ñaari baat kese justement maa ngi ñëw dinaa. toléré ak géré non dinaa dinaa ci ñëw. ak l'opinion publique internationale. Mhm. xam nga li ko indi ku ci nekk li la intéressé li la concerné ci discours. Ousmane Sonko moom moo la réagir loo mais xam nga. loo bëgg wax foofu li ma bëgg a wax déjà parce que boo seetloo euh, waa Pastef ce qu'ils disent mooy la traite euh, la presse locale. a mal compris les propos de Sonko wala ils ont fait exprès les journalistes euh, d'ignorer royalement ce qu'il a dit te et qui offense l'Occident xam nga li ko indi en fait c'est-à-dire que ñaari euh, opinion yi bokkuñu culture bokkuñu objectif bokkuñu gis-gis ci question homosexuelle. bokkuñu aussi fi ñu yam ci question boobu. justement te beneen bi si tegu mooy je commence par l'opinion publique internationale. Mhm. ñoom mm -hmm. il s'attendait xëy na parce que Ousmane à Fran à à à Jean-Luc Mélenchon et Jean-Luc Mélenchon nekk une icône de la défense des droits des homosexuels en France. ñu yaakaaroon ne xëy na xarito boobu ba mu koy déplacé à moins de deux mois. yaa ngi dégg. Mhm. de son exercice du pouvoir xëy na ñoom fi ñuy xaar mooy que moom la mu xëy na entre guillemets ou mhm. entre les lignes amoon na lu mu leen dikk. on sait jamais comme ni mu diggee woon peuple sénégalais mais foofu dinaa si ñëw mais xam nga lan moo leen poser problème ñoom lu ñu wax. mooy le terme casus belli mhm. maanaam la défense des homosexuels sera le nouveau casus belli entre l'Europe et l'Afrique ou bien entre la France et le Sénégal mm yu bëri nag comprendre lañ mooy casus belli ba ñu naan woy déggu leen tubaab déggu leen lii déggu leen la casus belli xam nga mooy lan mooy tey lii France di def soit mu nekk une agression wala mu nekk une. Euh, un acte qui motiver. une déclaration de guerre très bien une déclaration de guerre très bien un acte. qui peut motiver une déclaration de guerre loolu ci traitement wu dossier wu homosexualité loolu moo métti xëy na yenn opinion internationale bi mm mais en concernant les autorités françaises mais ñoom ba léegi yéeyuñ ci yàbbiwuñ ci mais xam nga lan moo ci gën a graaw dans tout ça mhm. xam nga boo la défence moom Ousmane Sonko nee na la défense et la promotion des lobbies LGBT maanaam góor jigéen yi dafay mun na créer un nouveau casus belli maanaam entre l'Europe et l'Afrique ou entre la maanaam Sénégal bu ñu nee ñett mais ma ñëw rek ñële bëgg mu def très bien donc ça veut dire que ñoom jàpp nañ ne c'est c'est sorte de déclaration de guerre en quelque mm. sorte alors que kan moo créer les conditions kan moo créer hmm, Jean-Luc Mélenchon turbine kan moo ko indi Sénégal kan moo ko yóbbu université. Mhm. kan moo ko mobiliser kan moo ko jox ay micro du Ousmane Sonko. c'est après Jean-Luc Mélenchon lu mu def du la propagande et la promotion du lobby LGBT. Mhm. taxaw naan il est le premier député à déposer une proposition de loi euh, sur la table de l'Assemblée nationale française. est-ce que bu sañoon. très bien may ma ma moom. justement mais gis nga contradiction bi au moment Ousmane Sonko. di déroule le tapis rouge à Mélenchon. mais moom ma ñëw rek au moment où Ousmane Sonko déclare yaa ngi dégg en ces termes que il risque d'y avoir un nouveau casus belli parce que ñoom du ñu nangu yaa ngi dégg ñu leen di imposer la propagande de de l'homosexualité au même moment lui il crée les conditions yaa ngi dégg toutes les opportunités et toutes les nu encore euh, tout ce qu'il faut. Mm que moom idéal. dans un cadre idéal avec. une cible bien déterminée à savoir les étudiants pour Jean-Luc Mélenchon qui est un un un symbole des défenseurs des promoteurs des lobbies LGBT pour mu def la propagande au Sénégal et surtout à l'université ce que Jean-Luc a dit bettul kenn parce que il a droit dans ses bottes maanaam foofu la mës a taxawee mais par contre c'est la réponse de Sonko qui divise en fait mais les gis nañ que ne il n'a pas été il n'a pas été euh, foofu laay ñëw expliquer droit dans ses bottes foofu laay ñëw alors que la France trouve que na Ousmane Sonko voilà foofu laay ñëw xam nga d'abord li nit ñi di coow pour man loolu amul importance mhm. parce que nee naa la au moment où muy déclarer la guerre à la France contre la propagande yaa ngi may dégg. Mhm. et la promotion des homosexuels c' au même moment lui il déroule le tapis. oui les actes posés yaa ngi dégg il pose des actes il favorise ici au Sénégal la promotion et la propagande yaa ngi dégg. de ce même li xaw a jaaxal nañu mooy jëmm Ousmane Sonko méngoowul ak loolu en fait. je termine boo xam ne il s'est toujours démarqué de ses pratiques. je termine je termine foofu laay ñëw xam nga euh, man ñaari mbir moom ma ci métti. mooy pourquoi à l'université mmh. pourquoi à l'université pourtant les textes sont clairs benn maanaam moom Ousmane Sonko il a violé les Français ouais. sacrés il n'avait pas le droit de l'université il n'avait pas le droit comme moom neena na Jean-Luc Mélenchon vient au nom de son parti mhm. moom il a élu érigé ses quartiers généraux à l'hôtel King fat place depuis ba ñu ko euh, premier ministre avec sa famille ses gardes rapprochés ses chauffeurs et tout ça là. aux frais de qui. aux frais de l'État parce que dégg naa sax ay rumeur comme quoi que il paie 7 millions par jour yaa ngi dégg léegi kay foofu am na ay salle. am na ay auditorium ñoo xam te ne nii mënoon na fa yóbbu ganam leneen li ci gën a grave mooy xam nga la fa bëgg a woon. mais l'université l'a accepté xam nga la la fa bëgg a woon tubaab yi. son ami euh, kii ñëw Sénégal pour def la promotion de l'homosexualité. Mhm. mooy gis nga man ndaw ñi ndaw ñi gis nga le lu ma leen def loolu la ñuy def. lu ma bëgg loolu lañ bëgg parce que li mooy quand on a vu les étudiants applaudir lay ñëw bu paree huer la rek foofu lay ñëw justement c'est-à-dire que l'objectif principal de Ousmane Sonko c'était les tubaab ñi mu ko séqal ak Jean-Luc Mélenchon mi ñëw pour def la propagande rassurer leen que ndaw ñi mais ñoom amuñu sentiment boobu justement dafa nag que ndaw ñi seen mentalité bi maa ko yor mhm. même bu ma la bëggul duñ la bëgg mais su ma la bëggee dañ lay bëgg et raison pour laquelle mooy un étudiant sénégalais à l'université nga taxaw ab tubaab di di def la promotion de l'homosexualité nga koy tàccu nga koy ovationné sa recteur jël un discours boo nga xamante ne nii discours boo xamante ne nii day li jëmale sa njàng kanam li jëmale sa avenir pédagogique kanam nga koy yuuxoo parce que tout simplement góor jigéen ba ka ko fa indi wala kiy défendre góor jigéen yi ka ko fa indi sa Ousmane Sonko c'est pourquoi je dis que Ousmane Sonko yàq na li mu yàq ci Sénégal mooy lay jikko ndaw ñi. mais ce qui s'est passé à l'UCAD par rapport aux jeunes qui applaudissaient euh, Jean-Luc euh, surtout li amoon jouru prestation serment Diomaye Faye la. Euh, le Guinéen Doumbouya. ba ñu tuddee turam dañ ko ovationné. oui alors que président CEDEAO ma nga fa woon. oui euh, Union africaine. mais justement lijjanti wuñ leen. mais foofu laa cest ko loolu moom laa la bëgg a expliquer cest bu fekkente ne tey dañuy accuser Ousmane Sonko c'est d'avoir yaa ngi dégg détruit li nga xamante ne ni mooy morale mooy éthique mooy sens de devoir et de responsabilité ces jeunes là maintenant bu ñu ñëwee ci toléré bi mooy dernier axe bi. Mm-hmm. ba mu waxee ay casus pelem moom moo créé les condition de la promotion des homosexuels au Sénégal moom Ousmane Sonko mais dafa ne ce n'est pas accepté mais c'est toléré. une question qu'on va gérer. c'est une question qu'on va xam nga lan mooy tolérer tolérer quelque chose. Mhm. tolérer quelque chose mooy lii de war nga ko mën a bañ wala war nga ko mën a tere nga bàyyi mu jàll nga nangu ko. Mhm. loolu mooy tolérer te gis nga boo demee ci dictionnaire yi même tolérer les mots synonymes maanaam les mots qui ont le même sens que tolérer dañ ci gis accepter. Mhm. donc différence entre tolérer une chose et son contraire justement non c'est-à-dire que il non une chose contraire mooy c'est pas euh, accepté bu war se tolérer moom laa lay wax ne c'est-à-dire que lui-même moom c'est lui qui moom moo plongé wu dans cette confusion mais c'est comme ça qu'il communique c'est un activiste c'est un populiste c'est un démagogue. mais est-ce que aussi on n'est pas un peu trop dur avec lui. non jàppuñu ne rek xëy na benn mot la bu non non non déedéet xam nga parce ne vraiment. xam nga il s'est manifesté xam nga lu tax moom. étant opposant Ousmane Sonko moo fi taxaw sur tous les toits du monde ba tubaab bi sax di ko reprendre. Mm-hmm. que moom bu faloo loi bi muy njëkk a voté. mooy la criminalisation de l'homosexualité waaw moo tax ñu war ko xaar amaguñ majorité justement non fay may ma ma ñëw rek cest à loolu c'est après. Mm-hmm. les réformes c'est après. mais bu fekkente ne l'occasion se présente devant le peuple sénégalais auquel il a promis. de criminaliser l'homosexualité une fois au pouvoir mhm. mais qu'il pose wala boog mu joxe une orientation précise dans cette perspective mais doone créer les conditions ñu ñu def la promotion de l'homosexualité ba pare nga taxaw fële ne c'est toléré dinañ ko gérer donc de criminaliser à tolérer et gérer alors loolu lan la ci sénégalais war a mën a jàng